ñëw di bokk ak yéen mm-hmm. naqar bi. Mm-hmm. Euh, naqar bi aussi sunu naqar la ñun parce que kër gi sunu kër la. Mm-hmm. Euh, ki mu dal sunu nit la. parce que muy liggéey liggéey bu am solo ci ñun li ñuy def surtout. muy ñun way politique yi. ndax moom ku ko xam ci landerneau politique nga ko xamee parce que mooy may politique yi ñu waxtaan ak askan wi. mu doon ku ñu ràññee euh, kër gi aussi doon kër gu ñu ràññee aussi. ci wàllum audiovisuel. ci Sénégal. doon une télévision très mm-hmm. lu nekk nag ñu dégg ko ci jamono way politique yi ñu nekk di def nii. Mm-hmm. ci lépp. Mm-hmm. buñ ci amee ñenn ñi xam ne am nañ ci seen taxawaay bu ñu assumer ni ñun suñu rôle dañ koy def ba mu mat sëkk. mooy lan joxe l'information niñ ko gisee ak ñi mu ware information nag boo koy joxe risque bi da koy xam yow. parce que yow mi journaliste xam nga ne yow tu t'es exposé su ma jëlee sax dans le général. mondialement les journalistes sont exposés ndax bu guerre amee kan moo koy couvrir le journaliste mm. il est exposé da ngay dem ci dëkk yu am ay nu ma koy waxee ay feebar yu métti mm. ay genre épidémie mm. dangay dem di couvrir tu es exposé boo nekkee ci tey ci Sénégal situation politique fu mu toll nit ñi xaajaloo xaajaloo bu métti nga ciy wax sa xalaat tu es exposé Maimouna Ndour Faye ku ko xam xam franc parler ak wax li mu gëm dina am ñu mu neex forcément dina am ñu mu neexul